Salam alaikum wa Sénégal alaikum wa diaspora bi man la Baba amdi artiste musicien producteur de may ñëw rek ci li nga xamné mo lembé aduna, lembé Sénégal muy coronavirus ba nga xamné kenn mënul tey def sa activité mais damay tek sama baram fi nga xamné mom la chef d'état bi di woyé force Covid 19 force Covid 19 bi bi nga à mo wara am 1000 milliards dafa à am 1000 milliards mais aujourd'hui on a du mal à avoir ces 1000 milliards parce que tout simplement, à société privée voilà ñen ñi nga xamné ne am nañu yenn doole dugaluñ ci sen loxo wala buñ ci dugalé sen loxo aussi ah, nekkul lo xamné amna nous vraiment il a raison d'être remonté contre ces entreprises privées ah, wala nit ñoo nga xamné yéré nañ ko où sont les fils du Sénégal ah, je veux tout simplement nommer les joueurs euh, du Sénégal madame de l'équipe nationale du Sénégal parce que nous c'est des multimilliardaires ñu ngi doxantoo seen ay jet privé Euh, ana ñi nga xam ne ku ci mel ne Akon ana lu ci mel ne Orange Money wala Orange ñooñu ñëpp tey jii dañ ci waroon dugal seen loxo ba nga xam ne Sénégal du jooy dara la chance que le Sénégal a, moi, le Sénégal regorge de talents. Je veux encore parler de ces joueurs de football une fois, deux fois, trois fois. Si leen nous ñu régler problème parce que seeni ay naataangoo yu nekk ci àdduna bi ñoo fi nekk di def lu ni Le Sénégal le football ah, bi sonn lolo nek ci tali bi mère mak xalé ndaw dañuy def ñaan dañuy euh, nek ci di leen ñaanal pour ñu ay doom yu dara ñi am doole parce que ñeneen ñi def les sociétés d'assurance les banques mais aujourd'hui on a du mal à régler certaines choses on a du mal à régler certains problèmes parce que tout simplement xaalis bi nekkagu fi discours recevoir euh, Ousmane Sonko que je tire mon chapeau il a attiré l'attention euh, ci il a dit au chef d'État il faudrait revoir euh, li nga xam ne mooy nga yi ak en tout cas il a très bien parlé ci en tout cas il a très très bien parlé 50 milliards yooyu nga xamné mom lañu la de nit et le chef de l'État a été aussi grand mu donc moi je dis aujourd'hui le Sénégal fi mu toll ni di à ay nitam mais les dommages collatéraux yi ci nar a topp mooy ñi nekk seen kër te du ñu mën a dund ñooñu noo nar a kan qui la taximan moy ki jaay moy ki ñaw musicien bi jouer goudi ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc c'est très très normal pour qu'il appelle à la force Covid 19 quand il est remonté, moi aussi je suis remonté. Et le Sénégal devrait être remonté contre ces sociétés ou bien ces joueurs de football aujourd'hui qui devraient faire leur participation ou à ces multinationales. Nous le Sénégal, euh, non la ko yàlla teralee donc un doom dañ ci war a dugal seen loxo jërëjëf xam dina dinaa ñëw ci une vidéo yàlla na yàlla fay